Ousmane Sonko omb bi tamit gën a politique am ñu ne Kambirole donc su ko defee ñu ngi leen di sant bu baax sant délégation yi nga xamante ni ñoo ñëw dañuy seen tasa aussi. sante yàlla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen ko kenn ku nekk ci la ma santam leen wax ne ci cérémonie officielle bi dañu commencé ñu ngi commencé cérémonie officielle bi te yëpp ñoo nañ trop fii wala ko ne bu Ousmane Sonko waaye di leen naan ki nga xamante ne mooy El Hadj Mamadou Mame Boye Diao nekk wala nekk directeur ñoom ñu ngi

Bignona nekk doomu Bignona maa ngi nekk maire Kolda moo ci nekk bu sant bu baax waaw wuyu na la Abdou Karim non non installe après. waaw. xaaral xaaral Abdou Karim xaaral non non fi nga bëgg a jaar baaxul c'est pas bon. kan damay def nii damay jéem a waa si nii.

Vamos! xaaral na rafet rek na rafet waaw defal lu gaaw defal lu gaaw defal lu gaaw. xam nga boo ñëwee gars